goro jël ko def ci la ko neex mom ak ñeneen yeneen ministre yu ñu jappalé wa tay ñu rapport ak li sénégalais yi critiquer les magistrats au Sénégal ak li sénégalais yi histoire di ñaan une justice indépendante pour une première fois quelque chose d'historique, les magistrats jël seen ay responsabilités Cour des comptes def lu musuta def

ndekete boobu c'est à yéen pour ngeen séddoo suñu xaalis ndekete bi ñuy dóor yeneen i papa yeneen doom yeneen i sénégalais yeneen i nit yu nekk ci biir dëkk bi ñu leen di dóor dóor yi méttee métti yeneen a ut pexe ak lay bu ngeen séddoo xaalis bi ndekete ñun bi suñu hôpitaux yi di jooy ay gants di jooy ay coton di jooy ay alcool di jooy ay masque ba ci ñenn ñi jël seen ay masque di ko xooj di ko fanaanal ay fan di ko def ci eau de javel di ko baxal pour mun ko solaat milliards sénégalais c'est vraiment irresponsable de votre part Vous respectez wulen sénégalais te et c'est dommage vous n'aimez pas ce pays ce pays vous a tout donné xamu dara du ab ñang du ab xam-xam du ab yene du ab mën-mën du ab dara accident fa ñi ñenn ñu xarit lañ ñenn ñu xaritu xaritu xaritu lañ looloo leen tax tey ngeen nekk ni da ngeen di gérer da ngeen di téye Sénégal waaye bu doon xam-xam xam ngeen ne xamu leen dara en quinze ans vous ne même pas censé régler ne serait-ce que le plus petit problème de Sénégalais ñu jël lu toll noonu ci alal jébbal leen ko am ci yéen yaakaar ne bu fekkee ne comme xeexu mbas la ñu xàllil leen yoon bi ne leen ilaa Touba baa ngi nii dem leen kenn du leen xatal ngeen ut nu ngeen tàppale ak nu ngeen sàcce lii dafa ruslu li ñak jom la et je le dis encore une fois li ñak jom la ñak pas-pas la ñak bëgg sa réew la et li ma gën a métti li ma gën a pour la première fois tous les sénégalais magnifier suñu ay magistrats Mansour Faye ak suñu tata Aïssata Tall Talsal, vous vous permettez de venir critiquer et de jeter du discrédit ci kaw corps de contrôle boobu non, nga xamné ay magistrats yu digne ñoo nek ça c'est vraiment répugnant c'est honteux et Macky Sall on te met face à tes responsabilités L'ol mënoo ko mu impuni un ministre de la République ne peut pas insulter des magistrats à ce point nga bàyyi ko mu impuni mu tok ci gouvernement bi kon xam nga ne mbokk ko tax du xam-xam du liggéey Mansour Fay, Mouno fuñ la dénk nga yàq ko ñu kon ne di la dénk yeneen i mbir ngay xas les corps de contrôle de l'État ni bàyyi la fa xam nga ne du sax xam-xam mbokk tax yow mbokk moo la fa téye moo Sénégal wax ji du goudou. xam nañ li ci nek lepp xam nañ li ci xew lepp mais nak pesum kanam la ñokoy fajal suñu bop yomb na wax ji du gudd sama gay billahi wallahi ta'ala niki aljuma ginau suba suñu doyul place de l'obélisque ba mu fees ñu exiger à que Macky Sall ibbi enquête bi procureur jël ñam wara jël tek len loxo ñañ wara japp yobulen mandat dépôt sac de la relève volo de la république ñu tek len ci kasso bi ma xam ne ñun Sénégal amuñu fayda te bu yaboo ñu bàyyi xeex ñun amuñu fayda te bu yaboo ñu bàyyi xeex kon nag rendez-vous est pris képp koo xam ne Sénégal sa mbokku décédé na ci Covid bi te ñii mënoon nañ fexe ba du décédé ndax mënoon nañ defar ay masque mënoon nañ defar oxygène mënoon nañ ko jox gel mënoon nañ ko dimbali ci hôpital mënoon nañ yokk lalu hôpitaux yi defuñu ko woo nañ la ci ndaje bi boo fa ñëwul sa ñàkkum fayda la képp koo xamante ne nii sentir nga sa bopp ci alal bi nga xam ne suñu kilifa diine moo ko yëkkati jébbal ko nguur gi mu jël ko ngundaandaat ci yaataa yumba ci place ba bu la fa kenn jiitu képp koo xam ne rek sénégalais nga nga gis li fi toll ci ay moor li ci nekk ci ay malade li ci nekk ci ay problème ñu tëj ñu xatal ñu buntu xatal ñu xoqatal ñu dóor ñu tere ñu dem korité tere ñu dem tabaski tere ñu seet suñu ay mbokk am na nit ku fa ngénte am na ñu xam yu hôpitaux yi la doon yem ñaata liir ñoo judd ëllëg fii ba 100 ans dañ leen di wooyee bébé Covid mu nar leen topp ñii ñu leen di wooyee bébé euh, Covid ñi ñu leen di wooyee mariage Covid ñi ñu leen di wooyee nangam ñaata mbir lañ ca fomm ndax ndax ñii c'est voleur de la République si vous restez comme ça suba ginnaaw suba vendredi inshallah allah bu ñu julee tisbaar ba noppi te dooyuñu place de l'obélisque ba mu fees dell ma xam ne ñun Sénégal amuñu fëlëte bu yaboo ñu bàyyi xeex kon nag rendez-vous est pris tey jii li may manif magnifier la société civile appelle à une manifestation ce vendredi Kolda sax amna parce que Kolda aussi les fils de Alpha Molo balde il il faut que ngeen gën ce vendredi là ngeen fees del ci esplanade bu mairie parce que c'est important que région régions génne manifester ko peut-être pour les autres régions ils n'ont pas pu prendre le temps et les devants pour amener les franchises normales jour pour mon ko on va en arriver à ce à ce stade mais dama Kolda génn leen ngeen esplanade bi ni vendredi gis naa ne am ay caaxaan yu fay a xew accepté dem place bi ngeen manifester mais pour ce qui concerne Dakar li li cette fois-ci c'est la société civile qui a appelé pour ce 30 là mais au-delà de ce 30 l'opposition a appelé pour le 6 et ça c'est important donc on a diverses forces diverses dynamiques société civile parti politique société civile parti politique et c'est important parce que cette société civile elle doit reprendre ses responsabilités en main Nous taxaw société civile de salon civile de silucé non on doit aller au charbon il nous reste que 13 mois 12 mois avec ce avec gouvernement là il faut qu'on sorte il faut que nous wàcc il faut que il faut que nous puissions renforcer la marche de la société civile et aller aussi renforcer la marche de l'opposition parce que que moom mooy tax une série d'activités une série de révoltes une série de frustrations montrées sur une plateformes comme les marches comme les yu demee opinion internationale et nationale comprendre que ce qui se passe au Sénégal c'est grave parce que si nous Aïssata en Sall nous na adduna bi dem parce que si nous wax le Sénégal 6 milliards ñu en le gouvernement fait un communiqué non c'est-à-dire 6 milliards la rek Il y a 6 milliards da ngeen 6 milliards da ngeen 6 milliards xam ngeen lan la mën régler au Sénégal gi 6 milliards y problème la mën a saafara fii au Sénégal amuñ hôpitaux amuñ école jànguñ fajuñ liggéeyuñ ngeen ne 6 milliards la rek diko sofontal ça c'est vraiment irresponsable nous faisons face à un gouvernement bo je vous le dis tout de suite bande de malfaiteurs c'est une association de malfaiteurs association de malfaiteurs association de truands c'est des truands parce que qui truands, truandé ki lay bay ba ngay teud mu la c'est des voleurs et c'est ignoble ça c'est de l'ignominie et ça il faut que nous génn incha ñu magnifier vendredi le 30 à partir de 15 h obélisque nit war samedi sànni te du il faut que nous génn donc gars live bi loolu la rendez-vous est pris incha ce vendredi que tout le monde sorte maman enfant papa xalé ndaw tous les travailleurs bàyyi leen seen liggéey ngeen ñew may len réew mi ben trois heures de temps parce que dafa jot venez qu'on se batte parce que si on ne se bat pas ces gens là ils vont fonto dañu gëna foyé te il faut ngeen xam que à partir de ce 30 là on marque le pas pour wan Macky Sall ne ko 2023 mom du yomb mom 2023 nguuru Macky Sall du noy on va pas les laisser respirer parce que le 31 c'est important ce jour ñi ngi xaar Macky Sall addu ci mbirum candidature Macky Sall le 31 décembre soné do candidat ñëpp dinañ tàcc ku ne dem bakke ji sa ay liggéey Macky Sall boné candidat nga ñu def lu toll ni nga waxé né candidat nga inshallah rabbi kon gaay rendez-vous est pris inshallah allah le 30 ñëpp genn bu ko kenn wuutu ma ngi leen di wax né lepp lu fi dëng sama coobare la lepp lu fi jubit sunu borom la di ñaanat encore benen dig dajé di len wax salam jàngeen jeuf respect au peuple sénégalais di jaalwaat no mort ci Covid bi di leen wat les familles di wax ne jërë ngeen Sénégal et nous espérons que marche bi moy doon marche bi gëna réussi ci ñu mësa def yépp